di reyante matin midi et soir pour a ay milliers et des milliers de morts ngeen di dig ci aduna bi ay milliers et des milliers de morts 450 000 morts dans le monde entier Nous, Sénégal De résister te soo xoolee ñi nga xamanteni no lay malak malade genn génn ñibbi seen kër ñoo ëpp ñi actuellement ñi nga xamni ne ñoo en instance donc ay efforts remarquables remarquable xamni ministère bi def nako ko bëgg moy ñu andando def bloc derrière ces autorités jàpp ànd bokk ndey ak ndax réew mi ñun ay patriote lañu war a doon c'est pourquoi j'ai demandé à ces la là ñu yor ay euh, hydroalcool yor ay masque sol ay gants dugg ci nit ñi même su la jànnee dugg ci nit ñi yow waxal li nga xam ne moom nga war a wax suñ ko defee yaakaar naa ni ak ñaanu xalif généraux yi muy muy Tivaouane muy Touba muy Ndiassane muy muy Yoff kii wóor na yàlla am na nañu yaakaar ni maladie bi dina fi jóge yéen journalistes yi aussi yaa ngeen di jouer un rôle très important parce que lu mel nii yéen ñëpp ñu ñëw pour lancer message boobu du ma def loolu di leen gërëm di leen sant di leen wax ni leen maladie bi day jommal na réew mi jàmm jommal na Sénégal dee leen raxas seen loxo dee leen masqué wu tisit yi ñu sor gis ngeen ko toutes les mesures barrières yi ñuy wax mi ngi fii nu teg donc lii rek message la maa ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla mbes mi yàlla na fi gaaw a jóge du le ministère de la santé à tous ses services qui supportent bi nga de communication apportée pour nous éradiquer la pandémie du Covid 19 je vous remercie.